Abdul Karim muñak mandooy mbaki ragal Yàlla lii la boole sopp Sëriñ Bamba Karim muñak mandooy mbaki ragal Yàlla lii la boole sopp Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba Alaaji Falay baayam baayu Sëriñ Abdou Karim sama sang bi ma jële ci lëndëm dugal ma ci leer borom di desa sopp Sëriñ ma nooy du ragal so by my Sëriñ sama sang bi may welo bale sa bus yaaram ma nekk ma ñaanal moo ma gënal ku ma ñaagal bale sa bur Sëriñ Ndaka Mara xadim sàmm fara junjung may sa tindi yaasin daawul la doy loo li la boole sopp sëriñ Bamba jaarajey ndigaan jaarajey ndigaan jiitu jey ndigaan samba jaarajey maar boromi junjung elas nongoy ma ke ragal yaal lii la boole sopp sëriñ Bamba ji mbigaan jiite ji mbigaan samba jaara ji maar alaaji nongale yuy baayam fara ci may sa tend yaa si daabul ngoone mbaay géej mbokkum yaayum mbokkum yaayam Ablaay jeey jeey ma samba gi jeey ma samba naa ta ko ndeysaan mu ñàkk ma nooy lii la boole sopp Sëriñ Bamba àndoog ragal yàlla eh, lii la booleeg sopp Serigne mbamba mi maamam Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallilou la faye woowule way ñu ngi leen di bu baax téléspectateurs yu Sen TV fu ngeen mënti nekk waxtu bi jàkkaarloo ak ñun waxtu yi bu jotee dañuy àndandoo ak yéen si jataay bi mag bi nga xamee ni moo di mbaboor mi ki ngeen gis mu ibbi léegi jataay bi te xale bu euh, mën a way lool macha allah fekk baax ci Cees yi benn dëkk ñaari gaar nga xamee ni euh, réservoir de talent la talent rek la euh, foofu ca Cees mu ngi tudd xadi fay waaye rek lay def te xam naa di ngeen ko découvrir ci biir mbaboor mi dellu si waat nañu ànd ak équipe bi di leen ziyaaraat àndati ak yéen yenn saa yi ñu leen ay spécial waaye yenn saa yi itam ñu ñëw àndandoo ak yéen ci thème yi xam naa ne Alaaji Youssou Dieng Sanou am na leneen lu mu indi tey ay gan yu uh, mat gan kenn ku ci nekk jàmbaar nga ci wàll wi nga féete bala maa ñëw ci alaaj Youssou Dieng ak sunu gan yi damay dem ci Thiam. Hmm. bàyyi faat Thiam dogo kon nday mbay galle def nga lu baax noo def. sant yàlla bu baax bi ci yonent bi. nday mbay de mbay loo mën ci bégal ko bégal ko. bilaay ci laa dëkk mbay. waaw galle moom wa tamer maa ngi ciy jaamu yàlla. waaw ah, kay te day bay sama njëkke la. maa ngi ciy def lu ma mën. waaw ah. di ci def lu ma mënul. très bien. wallaahi wallaahi yaay Fatou Thiam loo mën ci muy reedee ko def. Ah, waaw yow Alima yow tamit li ba jàmm la yow tamit. <laughs> li ma la wax jar na lu ne mbay. <laughs> waaw Alima dañuy santaat yàlla bu baax di julli ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. di ñaan yàlla sunu jotaay bi yàlla bu mu doon sunu mujj jotaay. amiin waay. di ñaanal sunu xalifa. Mhm. Seydi Aboubacar Sy. Mhm. yàlla na yàlla guddal fanam. amiin si Malick. jumaam ji nga xamante ni da koo dégmal yàlla na ci julli ci baax Seydina Mouhamed. amiin waay si. di ko ñaanal xare xaritam ba Serigne Mountakha Mbacké nga xam ne mooy borom mbégte mi mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ci barke Seydina Mouhamed amiin Mbacké Balla alima di profité di ñaanal sunu baay Pa mhm. di ko ñaanal yàlla defal jàmm mu dellu si waat sutura ci barke Seydina Mouhamed allahumma amiin dellu si waat di nuyu waa Grand Yoff te te xam ni mbabar yàgg naa am. Mhm. mais li ma siyeen. Mhm. ah ci kanam tuuti Alima ma yi dina kuruk. baadu dragon li li ma dégg muy direeku. li ma dégg muy direeku. dragon la. <laughs> gisuma ko teguma ko bët. ah lii dragon <laughs> Alima. foofu rek la ñuy jaay nuyu sunu di jaay lenqe. wallaay allah di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam. allahumma amiin yàlla ni mu jàppee ci boppam bi gis nañu ko. wallaay waaye rafetlu na lool. doon gi mu doon sunu nijaay te yàqu ko benn yoon nag. lenqe lenqe te yàqu ko benn yoon. <laughs> alima di ci profité di mhm. ni dal leen ak jàmm. wallaay di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal jàmm. alima fu ñu tëjee rek di gërëm waa Grand Yoff. Mhm. xam ni guddi guddi Grand Yoff na ni fanaani ji. alima ba ba léegi dañoo ànd ak mbégte. wallaay ñun day sar ko sagal nañu de. <laughs> la raaroon ca koñ ba. xale bi nan zar ko indil waat nañu victoire mbégte moo xamante ne nii njaago tàpp daw ba tàppanteeg joolaa joolaa tàppanteeg séeréer séeréer tàppanteeg wolof sanu xulle yee jalaañoo ali sar ko indil ko dana defal jàmm defal ko sutura sàmm carrière am ci Seydina mu xam sunu sac dëgg la mooy sunu sac de muy tunu tiituro keneen dëgg la tiqum jalawle ah gis nañ ko dañ ci sar <laughs> na ko yàlla defal jàmm amin incha allah boo koy càmmaas bàyyi fat càmm dëgg mu deen ak nag euh, jëwrin euh, ngañ mu Chérif Abdourahmane Fall ci laala ah, di euh, kenn ci ñun di sunu jëkkër di sunu xarit ah, jëwrin ñi ziyaara bu baax baax mbuub dina dalal jàmm ci seen TV sa kër. jërëjëf Adja Alima madame Mbaye <laughs> sama soxna su baax si maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu. di jaar ci yow di nuyu réew mi ak biti réew. Mhm. di nuyu képp koo xamante ne mu ngi jàkkaarloog ñun ci émission bu mag bi mhm. Mbaboor coow lu gëndaloo la. déggal loolu. ku ci tàbbi rek bëgg nga say wax génn. dëgg la. loolu ñu ci boole. dëgg la waaye nag di nuyu ñi nga xamante ni ñoom lañu séqal plateau bi. Mhm. ku mel ni Thiamas nga xamante ni man maay première soppeem. wallaay ndeysaan di bu baax El Hadj Youssou Dieng. wallaay c'est mon frère de bu tedd la boo xamante ni réew mi sax xamaguñ ko. wallaay dëgg la. di nuyu soxna su baax si ma mhm. jàkkaar lool. Khady fay Khady Faye mu bàkk léegi si Abdou Karim Mbàkkeem Sëñ Fallu mhm. ku ñëpp war a way la parce que way bu ko nit amee. boo mënta way tàccul. wax nga dëgg ndax way nit da koy wutal boppam. dëgg la de. te dafa fexe ba incarné loo xamante ni ci réew mi. ku mu neex ak ku mu naqari ma ngi ca kaw. walaay dëgg la waaye ñoo ngi jaar ci moom nag di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sa borom yàlla yàggal ko wéral ko. ñaan sëriñ Modou Mbenda. Mhm. waaye ak képp kuy xalif généraux nekk ci réew mi. Mhm. waaye di yalwaan yàlla ngërëm ak yërmande ak leer ci Cheikh Sérif Abdourahmane mhm. bi nga xamante ni mooy sama di sërif Abdou Aziz Fall Tilala mhm. nga xam ne ni mu doonee sama sëriñ lay doone seen sëriñ yaag caama wallaay dëgg la ndax yéen da a bëgg sëriñ Babacar si gëm ko dëgg la moom nag soxna Fatou Kiné Sarr mi ko jur mhm. soxna Khady Seye ko jur caatu sëriñ Babacar si dëgg la de moo tax nii nga dégg borom lu bële li bëgguma koo xool sax li mu yore mhm. li tax muy dugg ci xol noonu la sëñ bi juddoo tama ñaari boor lañ ko foore bi noonu la demee ci diine kon bi ba di kanam insha allah jërëjëf waxal nga yàlla de jërëjëf macha allah borom borom tabaji wallaay wax nga dëgg eh, li mu yor tubaarkàlla boo ko xoolee mën naa indi leen dëgg la de alaaji ah, Youssou Dieng Sanou ah ñu ngi lay ziyaare yu tam bu baax a baax waaye ma nuyu Khady Faye bala maa yegg ci yow Khady maa ngi leen nuyu di bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi nuyoog waa Thiès xam naa ni tey eh, Thiès kaay eh, benn dëkk ñaari gaar ñëpp kontaan nañu waaw soxna Alima mhm. ginnaaw bi ñu sante yàlla rek julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam daal di ñaanal sunu ñaari waajur yàlla ñu xippe ji àjjana allahumma amiin waaye ñu ñaanal sunu sang bu tedd bi sëriñ Abdul Karim Mbàkke mhm. mu yàgg fi loolu balay sa téwéer allahumma amiin waay mu yàgg fi téwéer di am kontaante mbégte mhm. bu yaatoo yaatu ci émission bi ma ñëw tey di mbaboor mi mhm. ma yàgg ko euh, bëgg a toog fekke ko ak yéen tey sunu borom dogal ko macha allah ma ci am kontaante bu baax nag dëgg la di nuyu borom kër gi buggaan gi dani di nuyu suma frère bi Youssou Dieng surtout mhm. monsieur Degene buri kodd Dieng kenn du moom moom tamit nit ku baax la wallaay mhm. kontaan nañu xadi ñu ni tam mu ngi dendandoog alaaj Youssou Dieng Sanu moom nag dama koy wax ne ko mënoo ñàkk ci euh, mbaboor mi macha allah moom laa tuddee bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg alaaj Youssou ñu lay ziar bu baax a baax mu alaaji Papa Dieng jërëjëf Adja Alima ñu lay delloo ziar di kontaan ci dendateeg yow fii ci mbaboor mi di nuyu sama mbokk yu baax yi nga xamante ni ñooy ànd di ko def saa su ne. Mhm. di beral nuyoo nag tubaarkàlla jóorin ngañ bu. Mhm. ah muy koo xamante ni ku ma yàgg bëgg mu ñëw ci mbaboor mi la. wallaay ndeysaan. Euh, ni ma koy waxee saasu ne mbaboor mi mooy lu raar ci émission yi ci réew mi mën a dalal ñëpp. Mhm. ndax li ñuy waxtaane génnul réew mi. wallaay dëgg la <laughs> li ñuy waxtaanee ab njàngale la. dëgg la li ñuy waxtaanee tubaarkàlla liy delloo si nit ñi la. dëgg la fàttali seen i valeur te loolu euh, ku ko am rek mun nga ñëw toog ci baboor mi ñu waxtaan dëgg la baboor mi dalal na ba dalal imaam tubaarkàlla dalal na ba dalal sëriñ dalal na ba dalal tubaarkàlla jëwrin a xam naa ne du si yam ndax euh, li ñëpp am yéene mhm. wala ku baax ku ne yéene bi nga am ci réew mi mooy réew mi jàkk wallaay dëgg la kon ku am tubaarkàlla dara ci parole mm-hmm. moo xam muy muy muy xam-xam boo am wala benn baat mm-hmm. boo xam ne njorte nga ne boo ko waxee ci mbaboor mi nit ñi jëriñu ci mm-hmm. war nga mën a ñëw ñu ànd mbaboor bi wallaay dëgg la barkàlla ñuy rafet lu bu baax a baax a baax a baax disponibilité waaye wax na ko léegi moom suñu suñu mag la suñu xarit wallaay barkàll ñu bokk lu bëree bëree bëree bëri kon dañ koy remercier di wax réew mi nag ngeen déglu jëwrin soobee yàlla bu ci kanamee bu ñu waxtaanee di ngeen xam ne ku ku réew mi ñor la. wallaay dëgg la barkaal la Khady Faye nag ma koy remercier moom it. Mhm. alima di wax nit ñi euh, nañu dugg ci biir dëkk bi. Mhm. jeex jeexaan. talent yi talent yi. dëgg la taxee ñu ñu jëmmal leen. dëgg la dëgg la. kàbbu gee di doon jékki-jékki gis benn talent rek dem jël ko yóbbu ñu produire. dëgg la noonu la dalee woon noonu la dale woon ci faatu Mbaye ak Jali mhm. ndeysaan maa ngi leen di nuyu de passage Jali sama sama sama la woon boo la ne cëpp Ndakaaru daf may woo ma gàddu samay sabat fu muy tëggee dama ko doon wax booy ñëw Thiès mook Alinguer booy ñëwatee Dakar bu leen indi sabar. ndeysaan ndax bëgg gu ma leen bëggoon maa leen di dem yóbbul ay sabar. wallaay tëggale defal naa leen meeraay ay yoon yoon. benn bi Ndakaaru laa ko defee benn bi Thiès daa defal leen ko. Dakar bu gëyee leen gisoon rek. wallaay tubaarkàlla euh, ñu produire leen ñu ñu saf Sénégal bi. wallaay dëgg la waaye loolu jeex na léegi. ndax xale yaa ci réew mi. Mm-hmm. xam nga ne Khady Faye mi boo ko déggee boo xam ne. daan naan na ciy way. wallaay dëgg la ndax ndax ndax alima euh, tubaarkàlla tàmbali way ñu awu la. Hmm. nga nga nga téye way wi. kon hmm. toog moom. ba tëj way wi jot nga tëj ko yombul. wallaay dëgg la la fi def. dëgg la tubaarkàlla euh, ñuy wax ne ku ko bëgg. ma nga ceeskaay bu ci kanamee dina leen jox numéro yi ngeen ko mun a jote incha allah ndax nag. kii war ñu sàggan muy nax saaya déedéet déedéet dafa war a wër àdduna talent bu wóor la ndax talent la bu wóor a wóor a wóor a wóor te ni ma koy waxee saa su ne talent wóor talent yombul kon boo gisee ku ko am tubaarkàlla jàppale ko jàppale ko réew mi rek ciy jëriñu mm-hmm. Sénégal réewu cosaan la ak aada di réewu culture ah ñu bokk kajoor ndax kajoor nag xam nga ne tubaarkàlla 60 pour cent des griots du Sénégal ña dëkk kajoor wallaay wallaay la boo génnee kajoor ci ci ci ngéwél rek ngéwél daal di ngéwél jeex tubaarkàlla rawatina nag bi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci mm-hmm. dramatique ci ci ci musique ci lépp loo xamante ni ba ci ba ci diine ji sax mm-hmm. kajoor da cee am wàll wu am solo dëgg la donc ñu ngi a a teewaayam ci mbaboor bi ak euh, équipe bi mu àndal alima mi ngoog Alaaji Yuusu Jeng tey lan ngay indi ci mbaboor mi waaw tey nag alima dama bëgg ñu dellu rek euh,